déglu leen déglu leen s'il vous plaît déglu leen instant bii nii bëri na ñuy am ay problème foofu instant bi on est obligé d'arrêter le concert. ay ñu xam ñoo ko tas daa am ñu nekk si ñu xam ñoo ko tas. pour suñu sécurité ñu bàyyi kii bi noonu ñu bàyyi concert mu tas moo gën mais. war ah, a tas concert bi yow léegi lan moo VIP sama ngeen bokk bëgg-bëgg